Politique, politique occidentale a détruit mon Afrique. Politique, politique occidentale a détruit. Kañangi ñi seetaan ñi di ñu ñaawal fippu bi yagsi na gaaña ngi ñi déglu neneen ñi di ñu ñaawal waxtu bi yagsi na gaaña ngi ñi reetaan neneen ñi di ñu seetaan fippuleen gañña ngi ñi retan ñeneen ñi di ñu ñaaxal xale yi fippuleen politique politique occidentale a détruit mon Afrique politique politique occidentale à détruire génne Sonko jot na jaayante yegsi na deewote yegsi na basu moo ndeysaan basu moo mbare basu moo basu moo mbare Sukonanko ko suumee suumee sume gars yi foog ñu xeex duma wàcc foog ñu xeex ndax bi mu leen ne foog ñu xeex dangeen ne foog ngeen pare ne ku ne naam ne fa Sonko lutte là où ses troupes sont pour histoire ñàkk xam système moo tax ñenn ñi toog fi naan leen dinañu voté def nañu recours Sénat def nañu recours Nations Unies eh moo ëpp Sénégal fukki yoon ak juróom barki Serigne Touba jëmmi sëñ Bamba ay Égypte moo ëpp Sénégal fukki yoon ak juróom eh, frère musulman bi ñu leen bëggee lekk anum alsesi faxasu lu ma xamee xaw ma nan da ko faxas teg fële pourtant moo ëpp doole ci lu dëkk fa dëkk ba ëpp fa raison ëpp moom dañ ko sax votel gañal ko ñu wekki ko teg ko fële assimilation Sonko mi nga xam ne votel guñ ko am ñoo xam ne ne kenn mënu ko ne tere nekk candidat yéen mën a duul yéen mën a fen combat bi dafa am ñu si yaakaar am ak ñi si wut am ak ñi def don du combat bi fa la toll yaakaar am am ñu ci wut am am ñu ci joxe son bopp comme Ousmane Sonko démb lu tax laay fa ma ki démb la laa leen wax Sonko va mal na waaw ma leen ci contrat combat bi la bokk moox yi kenn ñoo war a des sur garab foog ñu rey kenn ñoom ñaar moo tax ma ne leen foog ñu génn xeex rey nday Macky wala ñu seetaan Moussa Fall rey Sonko c'est man moom nekk fii di jouer ci ay sentiment ndax déedéet de islam lay xeex ak anti islam islam xeex pour teg anti Sonko a été très clair ci combat bi li mu leen wax c'est très clair moom mu dund ak moom mu dee aw ma sentiment yi ngeen am de. loolu laa leen wax Sonko va mal mais je m'en ndax si xeex lañ nekk il doit aller mal ndax xiif daa métti soo leen ma weddee xiif lañ ñetti fan wala ñeenti fan surtout moom mi nekk ci traitement arrêté traitement am xiif ngeen bëgg ma ne leen Sonko va bien eh il est dans le coma pour gagner cette guerre s'il doit mourir la il n'a qu'à mais Macky Sall ñun la ñuy dëgg ndeyam ren di ISEM 1960 bi teg fi ISEM bu bees sàkk ñun loolu la ñu waxante ci contrat bi. man nee naa leen j'ai pas vos ba tax na am na ñoo xam maa ngi gis ñu ma ci bëgg a waxloo naan ma immigré bëggi Mari Sagna dem seeti leen xam ngeen lu ubbi immigration bi est-ce xam ngeen lu ubbi immigration ban secret la leen Macky Sall jox te pourtant ñun ñëpp ñu ngi yaakaar non premier tour dañuy gagné. da ngay gagné premier tour waxuma leen benn mois mois d' octobre laa leen di wax entre le premier octobre et le vingt deux octobre dix mille cinq cent ñoo jóge Sénégal ay jeunes ak ay jigéen pour dugg ci Espagne dix mille cinq cent. Guy Marius Sagna day politique bu ko neexee dem fa mais dix mille cinq cent yooyu. yéen dix mille cinq cent boo leen wàccoon ci tali bi Macky Sall rey cinq cent mu des dix mille ngeen foog ni di ngeen nangu dem di immigré te immigration ku fi ñëw fan rëcc ko tubaab dafa joué ci publicité am ak téléem te manipulation li mos am dugal leen yéen ñëpp Europe Macky Sall ne marine national gëmm leen garaade marine yi ba ñëpp ñu affecté leen ci kekk ba fi nga xam amul ndox comme d'habitude l'armée n'a besoin que des hypocrites pas d'hommes forts l'opinion internationale ñëpp ne opinion internationale waxuñu mais opinion internationale ni muy waxee encore une fois Égypte nekkul cent cinquante millions d'habitants dix million le Sénégal système bi tey lii xew Israël loolu foofu la déparé parce que dañoo éliminé ñi nga xam ñoo dëggu yaqiinu loolu daf fi mos am mënu leen ci dara ñun sous région bi Mali xeex woote wàllu Russie ñëw Burkina xeex woote wàllu Russie ñëw Niger xeex woote wàllu Russie ñëw ñun Sonko ne leen nañ leen xeex mën leen xeex bi nañ leen ci boole Russie am ñu ne déedéet na ko Sénégalais yi xeex waaw parce que Russie dañ koy woo du ñëwal boppam waaw foog ñu wàcc xeex waaw démb conférence de presse la kos ma gis ñii ne lan keroog ouverture lan laa leen wax sonkorisé nañ ba vacances jeex sonkorisation lañ nekkoon ba vacances yi jeex lan laa leen waxoon ne nañu fexe fépp bind fa Ousmane Sonko kaye yeeg fépp dem ci conférence de presse bi ma gis nguuda boobu wax ko mu ne nañu fexe ñëpp sol t-shirt Ousmane Sonko ñëpp lii ñëpp lii moon ne demaat leen samay live jour bu Ousmane Sonko defee deux millions de vues newoon naa leen def na deux millions de vues yaa ngi ni jubilé comme keroog bi ngeen ni jubilé waat ci juge Saba si fay mais deux millions de vues yi patriote da ngeen gaaw a jubilé da gaaw a kontaan man newoon naa la Ousmane Sonko defoon na keroog une communication mais waroon na def une communication économique tey nee ngeen na ku nekk wut t-shirt wala yëre bu dessiné Ousmane Sonko sol kook yooyu yëpp ma ne leen déedéet parce que bés boobu keroog gis nga 2 millions de vues boobu France 24 mooy fayeeku xaalis ba costume ak chemise bi mu soloon même buñ ko ñawee Sénégal tubaab moo ko soxla ñun soxlaa ñu ko ndax amuñu njëkkam bu soloon batik teg ci mbaxane wala soloon loolu député Oussouye bi soloon Samb ba ma jàmbal jaan diñ ko fi MFDC ba mujjee ko rectifier déguisement boobu mu soloon bu ko Sonko soloon jour bu muy wax ak France 24 tey ak 2 millions de vues ya mu amoon en 24 heures tey bu soloon tey déguisement boo xam ne si Ousmane Sonko déguisement boo xam si Sénégal mais comme su ma waxee ñu ne ma danga compliqué man leen compliqué wu ma dama nekk ci combat nekkuma ci politique je suis dans fii laa doon calculer tey tey bu Sonko tey soloon tey yére batik même d'origine séeréer waxuma leen yére Casamance même yére séeréer boo xam Sénégal lañ koy defaree bii heure tey calculé 3 millions de Sénégalais tey jëndoon tey yére yooyu ak jël ay t-shirt def ci photo Ousmane Sonko li nga xam ne yéen sëriñu daara yi yéen loolu sax yéen warul yéen a ko waroon interpeller parce que ça à l'encontre de li ngeen di woote. dessiner jën mi nit photo de nit taf ko fépp ça va à l'encontre de votre religion li ngeen di woote moo tax chaque jour ma ne leen Sénégal du ko jullit xeex Sénégal dafay jafe dafay metti def leen fépp photo Ousmane Sonko déedéet keroog boobu yéen ñi encadre Ousmane Sonko yéen lan moo tax Nigéria ñu am tenue boo xam ne Obasanjo la tudd pourtant Obasanjo moomul yëre bi yëre boobu tenue traditionnelle aw sol mais lu tax président nigérien yi sañ ko ñeme ko sol ñun pour la ñuy imposer Ousmane Sonko suñuy opposants yëpp ñuy sol ay. costume pour faire plaire aux blancs pour dire aux blancs eh, écoutez opinion internationale loo leen bëgg mu wax te ñun ñu ñëw ñu rëb ñoom malgré que combat africain la ñuy mëne changement système laa wax changement radical moo tax soo ma ne xaalalaahu rasulilaay nee na ma ne la constitution république lu mu wax ndax république moo gën a fort diine ci biir réew ndax réew benn diine mënul moom réew réew tegewul ci kaamin ci constitution la tege foog ngeen di dégg code ñeme waxante dëgg constitution moo leen ne foog ngeen xeex constitution moo leen leen manifester leen pourtant constitution boobu bi Ousmane Sonko ne constitution bi Macky Sall mu ngi ciy def loo xam ne bu leen rey doo leen ci mën dara kenn génnul woon marche gi Marius Sagna génnoon di rey boppam. ma ne leen constitution bi def na leen yéen ñëpp ay terroristes comme tëj leen day yomb ñu ne non grand bi suy wax moom ni parce que boobu j'étais trop direct di ngeen bëggoon ku leen neexool lool kenn du tere Sonko nekk candidat man leen gars yi boo leen xeexul je le jure mënu leen ci dara l'état c'est l'État restera toujours fort mais c'est les hommes qui incarnent les constitutions ñooñu la politiciens yi di fexe di corrompre te mënoo saagandoo juge yëpp comme mënoo saagandoo gendarme yëpp comme mënoo saagandoo policier yëpp ñun waatuñu ci kaaminu baa pay kenn waatuñu ci livre ak muy kaamil waatuñu ci livre chrétien bu Abbé Jacques Seck waatuñu ci waatuñu ci livre ñoom Pérès muy livre Juda Tawrat waatuñu ci ci ay institution lañu waat prêter serment ngay def ci ay institution institution boobu lan la la république c'est plus sacré pour nous parce que la république compose tout le monde amul athée amul chrétien amul musulman amul amul amul mais léegi naka la ñuy def ba respecté ko yéen Macky Sall respecté wul république yéen ngeen bëgg ragal ki nga xam ne respecté wul république man loolu laa commencé wul comprendre ragal ki respecté wul république. ba tax bu ma leen ne gars yi nañu xeex na non grand affaire bi mun nañ ko régler déggu leen ma de. Ousmane Sonko Ousmane Sonko protection bi ngeen ko commencé ni protection bi laa leen wax bu campagne ñun ba le premier avril balaa passation de service gars yi dóor ko bal mu wàcc bu rëccee hôpital bi laa la wax de bu ñu xeexoon nii ba génnee ko Ousmane Sonko waxuma leen cinq cordon sécurité kuy yore Ousmane Sonko kuy àndax moom te yoroo goon jàppal ne sa bakke na ngi ci xottu gerte yéen politiciens yi gis ngeen sàkkal y a une presse qui manipule y une presque yi donne de fausses informations Louga maa ngi gis opposants yi ay Ahmed ay dara di wax Malick Gakou di wax Khalifa Sall di wax foog ni clair waxante dëgg yéen opposants yi manipulation bi da ngeen koy ba wala liñ leen waxoon gëmu leen ko li ma leen ne bu Ousmane Sonko bougé wul kenn laa leen waataloon ne leen kenn du dem jëli ci candidature maman ji renseignement Sénégal police gendarmerie armée yëpp ñu ngi côte rouge. yow gàkku keroog dañ la téye pour sa sécurité am nga sens garaawul ma passe dama leen defal promo mais boo jàlloon ma dëkk sa ndey malgré sama grand nga mais ci Amadou Ba nañ leen wax réellement fan la coup de feu bi jóge ba mu jaxasoo te comment ñiy ànd ak opposants yi ñu leen di désarmer mais ñun keroog bi benn coup de feu dalee Hmm, jëf sama maman zone yi te tundey bi benn coup de feu dalee plus de 60 personnes génne nañu goon ñaari garde yi ñaari ministre ñoo fa daje woon ñu def bloc ce qui fait que nekkoon en supériorité numérique sans compter policiers ak gendarmes yi fa nekkoon benn policier joolaa jotoon dafa nekk ñu jël ko jiiñ ko affaire bi te kat ay garde corps ay civil ñoo jàpp ab policier joolaa <laughs> allahu akbar eh policier bi il n'en est pour rien Amadou yow xam nga ni bu baax yaa ngi mën ay enquête sa suuf Mamour Diallo woo naa seen chauffeur ba naan ma xamuñu Mamour Diallo ma leen yan laa naroon dëgg sa ndey yow mi ma fekk nga gaaru si wetu jumaa ja yow booy yi nañ la ba récupérer sa kóol maa ngi la woo naa la tey suba chauffeur Mamour Diallo ci boppam woo naa ko tey suba yow déjà xam nga ma xam mais ni ma la amee woon noonu gis nga police ak gendarmerie bu ñu taxal woon mu dugal paaka génnee ko ñun duñu rendi mukk di ñuy génnee paaka dañ lay sarax dangay topp sa deret di daw mais sa deret du la taq du ñu rendi on n'égorge jamais Amadou Ba nee ngeen kenn du parrainage tànk yow mat la woo parrainage samedi li la rëccal xam nga ñun xam nañ nekkoo woon suñu ko collimateur comme ñeneen ñu ne nee nañu man dama violent ak damay xeex waxuma leen violence tànk dëgguma nday ab candidat bal billahi tànk reyu ñu nday kenn ci candidat yi muy Amadou Ba wala yéen candidat islam yi tànk dóoruñu ci kenn bal doo leen xam ne gaa yi ngi ci dëgg man léegi nekk fii naan leen ay regrouper leen manifester leen eh dootuma perte sama tuflit nii sama temps pour manifester leen amatuma temps boobu de yéen opposants yi ñuy bloqué nag bàyyi leen manipulation bi côte rouge la gars yi nekk gars yi xam nañ ne métti métti moment bi waxuma ñeneen ñi de man laay wax ndax maay jël samay responsabilité boobu ku ci wuti ji parrainage prends tes responsabilités te Ousmane Sonko jotul fiche de parrainage Amadou Ba soit da ngay dem inaugurer foo dem pour parrainage Amadou Ba je t'avertis encore bu la Macky Sall rey bu la Marème Faye Sall rey man maa lay rey te dama koy assumer comme bëggoo def dara dañ lay defal lépp di nga xam ne sa yaay gënu fi liggéey ndeyu kenn bu ñu war a jël Sénégal jox la ko yow sa ndey gënu fi liggéey ndeyu kenn ba ab sàcc trafiquant de drogue un Guinéen nderañ xalpulaar jóge fa la ñëw bëgg ñoom moom du nekk samdi samedi yi li nga rëcc dem mbooloo mi bëri woon jigéen mais yàlla baax na xam nga biir da ñu gars yi ma may xoola gars yi xeex lañ nekk de opposant au pouvoir laa yemale tant que Sonko jotul fichier boo leen nangoo gaa yi def ay marché ak ngeen di wut ay ay wa dem leen DGC jëli seen fiche pour leen xëy leen dem DGC man nee naa la waxu daanu ci seret du ma ko wax moment yi li ñuy waajal Dakar yëpp ay Barthélemy Dias def ngandam meeting rallier yéen meeting boobu yéen patriote yi waru leen ko seetaan malgré Barth mu neen tëj yéen ñëpp yéen booy taamu tey Barth tey fu mu meeting au minimum dix morts war na fa am wala quinze boo leen dee ay góor yéen patriote ndax ay la li liñ jiiñ Ousmane ko nii yëpp taf ko si daram Ousmane Sonko laaj leen ko ni ñu ko tuddee woon ci biir group bi Uno la ko gars yi tuddee woon xam nga Uno tuuru bandi bu mag la mais ñoom Barthélemy Diaz Amadou Sall Khalifa Sall Amadou Ba élément parcelle ñun c'est des petits types man des petits types saa yi du ma leen sawar di tudd ndax après ay petits types ñoo lay tontu. mois de juin yéen yuuxu ngeen fi nervi ñoo rey gars yi nervi yi ñoo tiire nervi yi ñoo tiire image yooyu ngeen gis mais sur quatre-vingt-cinq morts au grand maximum trente trente-cinq la bal rey ñeneen ñi na leen ñoom waa PS wax naka la ñuy defee manifestation pour rey naka la ñuy manifester bu état reyee benn yow ñaata ko tax nga am pour rey pour wax leen lan mooy système Sénégal moo tax nee naa leen bu wax jotee rek foog ñun ñëpp waxante dëgg toog jàkkaarloo si bët. major Kandji bokk si jil yooyu xam ne bu fu ñu mënti dem bu ay autopsie génnee kuñ ko bëgg jiiñ jiiñ lu ko parce que da ngay fekk ku ñu jam paaka faar nga fekk ku ñu rendi te lépp ñu ne la day manifester ba pare ñu ne la FDS yaa leen rey. pour pourtant quartier bi ñu leen reyee amul sax manifestation mais on les compte dans les morts qui les a tués Barth répond à cette question Major Kandji répond à cette question te ngeen bañ kole affaire bi Ousmane Sonko il était trop innocent xam nga Sonko lu mu innocent rek ma ki Sall na xam ne xajuñu si ñoom bu ñu jógee benn <laughs> manifestation xajuñu si ñoom ñoom Barth nan ko dara bu ñu jógee dina xam boo jógee ñu ñoo lay dugalal gars yi ñoo lay dugalal ñun nag ñun la ñuy wax ndax équipe la yooyu yëpp Sénégal ay équipe la 1994 lu ñu fi def PUR tuddul woon PUR ah mu Moustarchidine Moustarchidane la dirigé par Pa Moustapha Sy 93 bi mu passé Ablaye Wade mu takk fen Sénégal PDS ñoo dëkk moso duul Sénégal PDS ñuy dëkk dëgg ndeyam Sénégal sëñ Moustapha Sy gagné woon sëñ Moustapha Sy 93 deuxième tour la ñu waroon dem ak Abdou Diouf gars yi muuroo ko côté arabe Égypte ay Arabie Saoudite yëpp sëñ Moustapha Sy commencé fa jël doole mais lan la gars yi def sëñ Moustapha Sy Djiboka ak Moustapha Niass bii di dund tey parti socialiste dañu àgg salte Fall Djiboka ak kii bii di dund ñoom monté seeni équipe dem ray pas policier yooyu ci bokkam yi Moustapha Niasse ngi dund ba tey quatorze policiers yooyu ñu doon wax monsieur Ridine monsieur Daan yee leen rey mais déedéet déedéet Abdou Diouf moo leen rey pour mën a dénigrer kii ñu naan l'islam lay jaay pour mën ko dénigrer au niveau des arabes pour mën a tas parti bi noonu la ñuy tasee mouvement monsieur Ridine monsieur Ridane parce que politiquement il commençait à gangréner beaucoup de choses nii la ko Abdou Diouf éliminé à travers Moustapha Niass kii était ministre des affaires étrangères ndax moom moo gënoon dégganteeg arabe yi moom la ñu woon tout ce qui ak pétrole Moustapha Niass a ko géré kon il fallait que ñu montel coup boobu sëñ Moustapha Sy pour mën a tëj sëñ mu Sy si si kaso bi ba pare dem dénigrer dénigrer ko kon manipulation bi yàgg na am nee naa leen toujours duma wax si détail dama leen andil lu palpable preuve teg sur la temple après ñu dem kon li fi xew ni si Sonko am nañu quatre-vingts morts Macky Sall leen rey bien sûr que oui Macky Sall leen rey mais lu tax ñoom ñu sañ ko collé Sonko lu <laughs> ñu sañ ko collé Sonko yéen c'est ces questions là que vous devez vous poser ak Sonko ndax Sweet Beauté moo ko sauvé ndax waa APR ñoo ko fa yóbbu wala ndax xaritam intime moo ko fa yóbbu pour problème yi yëpp am tey parce que problème yi yëpp foofu la 14 morts yi du problème mu terroriste de nañ ko wax te dee suite boote la mais kan moo yóbbu Sonko foofu kii xeex neex na mais lu tax sénégalais yëpp jékki-jékki rek mel na lu tayal ci xeex bi ak mu am kenn koo xam ne déggatu leen ko le baron quelqu'un qui a réussi son Bart dem maa ngi ne yaa jiite opération bi ngay ree naan ma noo waa am na lu mu dese xam eh Idrissa Seck moo rey ndey quatre-vingt-cinq personnes yi tey yëpp Idrissa Seck ak libanais Sénégal yi ñoom ñoo def benn bloc engagé seeni criminel nervi yi yéen ñu si bëri tiire ngeen mais xoola arme bu ñu leen joxoon bu fekkee yaa ngi wax nag moom ak bal yi ngeen yoroon na leen kenn génneel yéen seen arme nañ leen génneel ci ban koor la dugg je défie quiconque Idrissa Seck réunion flagrant délit moor yi passé ni mois de juin bi Idrissa Seck il a énormément participé bu continuer woon quatrième jour militaires yi commencé nañu woon yëngatu moo tax gars yi arrêté ko Idrissa Seck il a énormément participé pour la destruction totale de Ousmane Sonko moom Idrissa Seck moo communauté juif bu nekk Sénégal moo tax tay fay saagantey communauté boobu Idrissa Seck ak communauté libanaise bu nekk Sénégal criminel bu am fit tey ñoom ñoo la ko yokk ak xalifa Sall ak waa PS muuroo ngeen Sonko naan ko waxal muy wax manifestation am état di rey ngeen di rey lan mooy état yéen ñëpp ay état parce que système mooy état da ngeen di opposé wu ci public bi guddi yéenay bokk réer loolu la Ablaye Wade doon def ak ñoom Tanor Dieng Tanor Dieng recevait cinquante millions par mois ñoom lan lañ saba nekk nii trente million ñoom moo jóg de courant laaj leen ay vingt millions par mois loolu mooy ISEM xeex bi. du ma ko xeexee yëre Ousmane Sonko ndax ñun Casamance gisu leen fa kenn sol bracelet Ousmane Sonko on s'en bat les couilles de ça du ma ko xeexee t-shirt Ousmane Sonko ku ci am say xërëm yooyu kii bay sol yu xonk bu la neexee solo lu xonk ku mu neex na ko sol mais man ay ragal lu ñu xam ne xeex moo ñuy réglé ñu naan nañu xeexee jàmm ba pare naan Ousmane Sonko yooyu waaye ne la sa bakkal gën a réew mi proposel gaaw beneen candidat ça fait dix jours man leen Ousmane Sonko veut retourner à Sébikotane keroog yéen ñëpp bi ngeen naan mu ngi grève de la faim lan laa leen wax dellu Sébikotane bi la bëgg a gars yi bañ mu grève de la faim yéen a fi nekk naan jigéen ñi lay supporté ak yooyu moo tax du ma weddi waxu kenn mais dem ci teg liy dëkk bëgg na dellu gaa yi bañ soluma lu xonk Sonko il a été clair c'est fi ma toog mooy dëgg Sonko dafa ne woon sama bakkan wala bakkanu Macky Sall foog benn des fi te comme Macky Sall nee na du moom moo kii def passation de service ak Ousmane Sonko étudiant yi bañ ñu ngeen jàng noo département yëpp région yëpp ba biir fëngalo bi mu a des étudiants bu kenn jàng te bu kenn bi bu leen ma fontoo boyo yéen vous les étudiants bu leen ñu fontoo bu leen génnee nday école privée yi ba pare publique yi ñuy jàng école sœur yëpp cathédrale ak taal leen école publique yëpp d'abord gis na daa am fu muy toll réew mi nii bu ñu ko waree changer boo leen yaakaare na ay carte ay changer réew mi bu ñu voté waatee bu Sonko gagné ngeen yaakaar ne ay carte day changer réew mi ngeen yaakaar ne seen carte yi day mun faxas ñun ñii ñëpp nekk ci état vous vous trompez vous le peuple vous vous trompez billahi vous vous trompez ay carte mënu régler Sénégal politicien mënu régler Sénégal politicien mënul régler Sénégal de parce que politicien day toog si wetu sëriñ politicien mënul régler Sénégal politicien day am lu mu gëm politicien mënul régler Sénégal politicien day am lu mu yaakaar politicien mënul régler Sénégal Sonko il est plus militaire que les militaires sénégalais il n'en a rien à foutre c'est un casassé le don du soi la nekk de même bu Sonko naan moom diw mooy nekk candidat dootu ko wax ndax mu ngi xeexal boppam léegi nag ñan la signaloon contrat mais Ousmane Sonko signalul ak benn sëriñ contrat benn mbokku taalibe bi bu yaru woona ma waxal sa gaay yi ñu bàyyi sëriñ bi eh sëñ Mbaye Sy Mansour jël woon engagement de sëñ Mountakha Mbacké balla ay si sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu fadrin murid sëriñ Muntaxa Mbàkke représentant sëriñ Touba sur terre moo jël ak ñun engagement nañu yoral naa leen bor dinaa leen ko fay mais jabar ak dooleem Ousmane ko ñëwaat fa mu ne ko ku rey nit yàlla dugal la safara te Baye Fall yaa ngi di rey nit accident màggal gi xalif bu fi toog bu ne képp ku dee ci accident bu keroog di nga ko layoog wan-wan yàllaa ko wax de. sagam yonent yaay la yokk seen borom Jésus mënagul dem ba war a dellu si waat ba pare ñu ne yonent baa fi mujjee yàlla ko wax réglé leen rek dëgg bu jotee nañ ko wax xalif bi moo jël responsabilité yoreel ñu bor kon foog gaa yi wax ci loolu bu leen ma ko waxati foog gaa yi wax ci ku nekk ak nag façon bi ñu koy waxee yow la engagé pour tëj étudiant na dëkk bi saf na fépp tàkk na fépp boy candidat yi gars yi ñu ngi côte rouge yéena ma xamul mais ba ñi ma jur boo laajee duñ la seddal benn di ko xamul luñ lay wax criminel la point final <laughs> jëm mi seen ndam Amadou Ba keroog Louga justesse billahi bi heure Sénégal mu ngi ci boo xam ne justesse ñu ni dóor na nday premier ministre bal te man dóoruma premier ministre bal secrétaire généralu APR ki nga xam ne moom la ñu bëgg saxal nday ween bi mu nàmp ko biir APR di dox nii laa laay door ndayam bal pas premier ministre Sénégal dóoruma institution bal politicien ak institution bokkul il na se déplace pas en tant que premier ministre keroog bi ñu ko faree laa leen ne ne soyons pas des bâtards yemale leen ko candidat yëpp parce que dañuy bloqué ñëpp jox ko force de l'état yi pour mu dem defi campagne am loolu du fi amee ba pare ñoom tànk kan du fi amee gars yi bu ñuy dóor nday ay gendarme ci escortam bal dëkk bi dem góor si guerre bi dinañ ko def mais Amadou Ba kese du fi dem jëli ji ndayu ay parrainage c'est trop facile yéen Sénégal yéen da ngeen bëgg ndey lu yomb ku nekk bëgg wut fooy rëccee xeex bi di wut sëriñ bu la jàppale di wut fooy xoowe xoowuñu kenn Sonko deewoo ñàkk deewoo ñëpp la ñuy dégg seen ndey pour muy clair affaire bi xam ngeen lan la boo leen bëggee xeex xeex boo leen bañee xeex yéen a xam Sonko yéen la yaakaaroon tegu ko woon ci benn ndodd politicien man moo tax gars yi dañ naan Baye Ndiaye amul sentiment mais pour lan may am day sentiment te Sonko pare pour dee waa léegi waa léegi yéen quatre-vingt-cinq personnes yu dee nag quatorze personnes yu dee nag Fulbert Sambou Didier Badji ñoom ñëpp dee ngir jëmi Ousmane Sonko kon Sonko moo leen gën te Sonko mi war a diriger Sénégal dix ans Sonko mi ne leen moom système lay changé Sonko mi ne leen moom combat bi moom mën na ci bañ a bokk don du soil l'essentiel na tracé yoon bi ba yéen ñëpp ngeen gis bëgg a toog di ko jooyoo su ma amoon accès si Sonko di xam naka lay demee dinañ xam ndax dinañ toog fii di ko jooyoo wala day tëdd fële di grève de la fin di souffrir Sénégalais yi moom moomaay xam nga lan moo ma si métti bu Sonko deewoon xam nga fi ñu mujjee ndeysaan ndeysaan grève de la faim bi bu dee Sonko isem bi lay xeexal je suis très d'accord mais bu dee sénégalais yi lay xeexle maa bañ kooku moom je me répète. ñii jaruñu ko waa APR jaruñu ko mais peuple bi tam ndax jar nañ ko may dégg beneen wax ñu ne na waa Casamance génn yéen bi ñoo na rek la ngeen seen kaawu meer mais yéen ñi dëkk Grand Yoff HLM Patte ak fépp nee ngeen doo leen jëli arme mais xanaa mun ngeen def comme waa Casamance ñaata tëggkatu bongo ñoo nekk Dakar parcelle Grand Médine HLM ak fépp ñaata tëggkati bongo fa nekk ñaata sabar sabara nekk dakaar ñaata ci banlieue beeg fépp vous êtes combien nga foog banlieue bi boo leen fa génnee 5000 personnes Guédiawaye Pikine 5000 Thiaroye 5000 yëmbal ñoom ñëpp ngeen génnee mille personnes ñi yor seeni sabar ñi yor seeni bongo ñii di taasu ñii di fecc comme loolu ngeen gëm ngeen def comme waa Casamance ci dëggal seen bopp dox dugg autoroute. boo leen yeggee ba RTS laa leen wax Macky Sall libéré Sonko boo leen buggee dégg jàmm comme ay focc ak ngeen gëm ñun Casamance fecc ñoo ko réede dañuy tëgg ngir suñuy doom samp Casamance bu joxe bakkan jotee yaay yi dañ naan xale yi toog leen xale yi toog seen ndey yi génn ndax ñoom xam nañu àqu ñu réew c'est le contraire buñ leen ne Casamance bokku Sénégal ngeen mer mais nous sommes votre contraire quinze mille personnes kuddu ci ma mamaay tàccukaay kubéeru ci ñi sabar bongo marche ñu jox Sonko fichier mu bokk élection ñu xam ne jaral na leen bés bu Macky Sall tiiree seen kaw boobu xoola policier du sañ tiiree seen kaw lacrymogène la ñuy dóor ah nee ngeen dee bi dafa bëri léegi def leen comme waa Casamance c'est simple génne leen sabar yeeg jung yeeg yépp ak bongo yi teg ko ci tali bi marché jëm pale léegi Macky Sall wax lu leer coow lu jeex mais fit a koy def de ak détermination comme suñu yaay yi Casamance gis ngeen ne yaay yaay jóg jiitu bàyyi seen doom yi ci ginnaaw ak seen jëkkër yi si ginnaaw pour mën a régler situation bi ndax bu jigéen doxee ah benn jigéen am problème mu bopp Sénégal yépp am problème mu bopp. ma Marème Faye Sall embrouillé Sénégal yëpp dugal ñëpp hôpital ñiy cardiaque cardiaque ñiy dof dof ñiy dee d suñu genre gi ñu ngi mer depuis deux ans trois ans meru kenn mënta wàcc ndax lan benn jigéen gu bon yéen mille jigéen ñu baax boo leen jëlee seen responsabilité billahi déparé Grand Yoff mille jigéen kese day jigéen ñi génn leen léegi mu jeex yéen de Mama Zone moo tax ma naan Mama man proposition boobu laa am nee ngeen ban position la am ah kon sama lépp violent déedéet amu leen fit bu Casamance am moo tax man Casamance li mu leen waxoon c'est clair et bu fa bakken daanoo léegi dañu koy def gat sa gat sa bakken daanoo fa kon ñu ne dañuy am jàmm après ñu nax militaire yee jote te ba tey ñu ngi jote loolu seen yoon nekku ci kon ñoom dañ ko noppee waaye man tam dam koy noppi dëgg seen ndey ci biir àll bi ñu ngi ci benn xeex ñun mais yéen ngir yàlla génn leen. génn leen te yéen waa Casamance yéen ñuy dëkk Dakar Grand Yoff am ngeen fa ba am arrêt bi ñoo na am ngeen ba am arrêt bi ñoo na comme ñoom nee nañ na waa Casamance ñëw la seen problème mu doom bi waaye léegi yéen tam génn leen diriger lii mun naa waat ne boo leen génnee ñëpp génn topp ci génn leen tëgg ji seen góor yi bàkk seen góor yi ñu dem jëli ji Macky loolu looluy sauver bakkanu Ousmane Sonko ngeen foog awma plan pour xeex j'ai plusieurs plans de combat mais benn plan laay observé man mooy candidat yi xam nga lan moo tax xeex bi démarréegul ni yéen ñëpp a jëloon seen cotisation def ko ci parrainage te newoon naa leen ku ñuy pare ne day fekk muy yegg conseil constitutionnel comme nag da ngeen di déglu ñëpp ñëppay waxoon doo ba pare émission yi téléphone yi dafay xaw a embrouillé gars yi man nag moo dootu waa Pastef waa Pastef la engagé waa Pastef mosuñu ma jox di euros pour xeex mosul am ça n'a jamais eu lieu mosul am Pastef mosuñu ma jox di euros pour xeex temps am na combat boo xam waa taxawu ñoo ci jàpp aywa Pastef xeexuñu de ñeneen ñoo daan xeexal palaasu Pastef Sonko lañ daan jiital mais ñeneen ñooy xeex ci suuf Pastef ñoom bi ñu màndoo ci xeex bi xamoon nañu ndax boobu groupe laayfeur yi mu ngi doon dox wala doxul bi ci waa Pastef màndoon alxatir bi leen ji jot tegal Sénégal gaa yi tegal leen ko ba seen groupe yëpp daje ñoom moo suñu gis loolu mais xoolal ci waa Pastef lañ jaar pour calmer dëkk bi jaaruñu ci opposition parce que ñëpp ngi saaga Sonko kon ñemul réagir parce que yéen waa Pastef yéen a ne jàmm or combat bi newoon naa leen bu yàgg bi may tàkk ci waa Pastef kenn comprendre ma woon leen liggéeyuma pour Pastef Sonko laay liggéeyal parce que Pastef ñu mel ñu te man ci combat laa nekk. patriote yi le 29 bii ku leen li ngañ dem ba woote dina marché sans des fonds waxu leen dëgg. nit mënul xëy di wuti lu mu lekk nit mënul xëy di wuti lu mu lekk le pays est extrêmement dur Sénégal extrémité la nekk ni ñëpp a taxaw sës nit mënul xëy di wuti lu mu lekk nga ne ko demal xeexi nit xelam dalul nga ne ko demal xeexi léegi nag li ma leen wax laa leen wax te cotiser ngeen gars yi ñu ngi voyager di def am na ñuy def ay parrainage ci suuf mais loolu yëpp sa pas man ku ci mën di def parrainage yaa xam ci Pastef man sama ambition sama objectif xam nga lan la libérer Ousmane Sonko même bu Sonko taxawee ne duma candidat liñ ko bëgg a waxloo mu wax ko comme Sonko moom séeréer bi lañ ko bëgg a waxloo Sonko sa bakkan bi itam fa ragal naa ne est-ce que sénégalais yi jàll nañ ko Sonko tagal. ay Bassirou Diomaye Faye ak yëpp d'accord naa kenn du la teg kii ba pare di wax mais tam grève de la faim bi d'accorduñ ko de Sénégalais yi jaruñu ko lu fi deewaat dañ koy teg seen ndodd te man bokkuma sa parti te gars yi ñu ngi rey ci sa tur ñu ngi rey ci sa ginnaaw nay leer rek Idrissa Seck toute cette foutaise là moom moo la ko teg moom moo la teg ba problème bi yëpp bi nga waxtaan moom nga ñàkk problème bi yëpp moo la ko teg ndax moo ñëw gis say fort gis say faible gis ne kii ndekete nit ko oyof la di nit ko dëgër il a l'impression d'être dur mais il n'est pas dur bi gars yi découvrir loolu état réellement si yow ci lañ la ñeme ba tey ngandam lo bi nag moo la sacrifié ay Doro Gueye ak ñoom ñëpp ay prête noo la rek ay waxkat lañ man moo tax gis nga du ma nangu wax si ñàkk fay yi man maa ngi ci ñoom maam Libané ñoom maam Idrissa Seck ñoom la famille Perez man foofu laa nekk ndax ñoo ñëw la sacrifié juif yi la sacrifié nañ ko wax te dee bi nag combat fin du mois lay doon moo tax man le 29 bi rek ay joxel moo doon mënuma ko ñun ñoo jëloon li ñu yore yëpp ñu ne ci parrainage lañ koy def léegi parrainage bi doxul ouverture baa ngi ba tey yaa dee blocage gis ngeen ay cérémonie distribution mu ngi am ah léegi nag patriote yéenay tànn soit seeni soi-disant voix autorisée ngeen di wut ñoom ñu xeex wala ñoom ñu sacrifier Sonko teg fi un boy town du mu leen nëbb de Pastef dina dem élection seulement si ak sénégalais moo koy jiite. maanaam koo xam ne côté nord la dëkk Pastef mën na dem élection man tam dëgg moo ma sonal duma leen wax ne Pastef du dem Pastef du dem ba Sonko xëy ñu xoj koo xojo xojo xoj ba mu xëy ne na diw jiite yéen ñëpp ngeen am surprise déedéet du ma ko def ndax Sonko tal na leneen centaine la gën a tal ay jiite parti politique mais nag Pastef dina dem élection seulement si Guy Marius Sagna du bokk Sonko du bokk Pastef day dem élection mais ñaar ñooñu kenn ku ci mënti bokk Pastef du dem élection bëgg bëre bañ bëre ndax man ñëpp laay bëreel opposant comme pouvoir ku ma si dajal ci àll bi wala ku ma teel xam sa programme ci àll bi maa leen ni ko wax de maa leen ni ko wax code rouge la état nekk Khalifa Sall bàyyil muuroo Diof yor fi mu laa boo romboon ma dëgg sa ndey gars yi maa la njëkk romb moo tax gars yi téye la yow maa ni gàpp bi may romb Louga romb leen Louga après la ñu xaar xaar xaar ñu gis ci net bi ne dañ la bloqué ci lañ ñëw infiltré Amadou Ba pour jaxase kart gi te Amadou Ba ci boppam laa doon dëgg ci ndeyam nee naa leen billahi ma ñàkk sama ndey maa ngi waxaat jëmmi sëñ Bamba gars yi maa leen di wax bàyyi leen di dem ci terrain bi di parrainé wu foo leen wéetee yéen ay maire mii ay maire Aïda Mbodj xaar leen ba suñ ko jot ay fiches ngeen dem parrainé bëgguma ëllëg yuuxu jib fuñ ko fogeewul affaire bi di ñaaw ci ñun ñëpp. soit da ngeen di def bloc xeex pour Ousmane Sonko jot fichier soit ma ñàkk sama ndey di ngeen tal leneen lu dul ay élection Sénégal di ngeen tal leneen lu dul ay élection bu Sonko jotul fichier xam nga da ngeen xiif dangeen ngeen mar billahi di ngeen tal lu dul ay élection jiñ nañ ñu lépp léegi lépp lañ terroriste lañ jihadiste lañ man na xam nga fan laa bokk Israël laa bokk maa leen ëpp arme ëpp leen sañ-sañ gën leen ñeme deret gën leen ñeme ay néew je m'en fous ku dee ak ku deewul Macky deewoo Sonko xam nga lan la islam la ñuy xeex anti islam point ñoom ñaar nag njëkkante lañ nekk nii yéen xam nga xamuñu li ñuy wax nii boo leen di xool su gën gënee feebar ndox ak omo lu ñuy yëngal pikiir ko ni ñuy def prisonniers yi jeer ndox lu ñu lay pikiir nga fakk yi déedéet ndox lu ñuy dugal sa veine nga faatu fa yàlla en six jours sax. boo leen ni dof-dof biir hôpital lay deewee su boobaa moom moo rey boppam ndax dañ naan dafa xiir fekk ñoo koy fikir bu ñu sëkkatalee Macky Sall ñeneen rey ndayam coow lu jeex ku nekk dem ndax milice yi fi duggoon ñëpp ku nekk tal nga sa bopp Afrique ku nekk tal nga sa bopp ndax suy région bi am na leneen lu fi xew loo xam mënu ma leen ko tojal ndax ñu ngi ci leeragul génn leen libéré seen bopp bañ a yaakaar na Ousmane Sonko ngeen di libéré yaa ngi ni bëgg a Sonko bu ko neexoon ne tekk ñu ñëpp bu ñu neexoon noppi ñu ngi bëgg a dee ndax la Macky dëmm moo ko mos a fekk muy seeñoo de liir doo leen gën dëgg nday kii muy doomu aadama kese. 80 pour cent de la police et de la gendarmerie 80 pour cent de l' état ne sont plus d' accord avec Macky Sall ngeen di teel defal ba tey naan ma sol leen ñu rouge sol leen te ngeen di Sonko la. man bracelet sax dootuma ko takk désormais je me comporte comme waa Casamance xeex wàcc ñiy dee dee dund. point ñu génnee fi ndeyu ISEM bi man falaa tool toll ay di négocier martaatu nit pour bokk élection gëwma ko élection du am ndeyu 2024 te suñ ko bokk ci élection c'est pas prêt pour partir te Macky Sall 2024 bu ñu góorgóorloo du ko fi fekk ne ñu dëgg ndeyam balaa boobu yéen a gëm nday ay Macky Sall daf fi toog di diwla nit ñi day repousser élection Mbaye Cissé bu reporté élection Moussa Fall ma rendi ndeyam ñoom ñaar ngeen naan repousser élection yéen da ngeen xam luy daw ci réew mi ba naan Macky day repousser élection yéen foo leen teg seen esprit intellectualisme boobu ba ne leen bu ñu xeexee Macky repousser man yéen waa Pastef foo leen teg loolu ne bu ñu xeexee Macky repousser yéen daal yéen da ngeen foog ne yéen daal yéen Macky Sall daal lim leen di woon nii dëgg la Macky ay illusion la leen di woon da leen di halluciné loo di leen warantu dama dëgër dama ñeme nii la déyu tuul am na fu muy toll l'état va prendre ses responsabilités lan la loolee ni ragal lan la lu xew lan la qu'est-ce qu'il y a lan la qu'est-ce qu'il y lan la yéen da ngeen ñoo gën a bëgg jàmm kon ñu dee ndey ñi ñëpp kon yéen ñu ñëw leen gën ñun ñu fi des di wax ne ñoo gën ñu dee une révolution sa gagne toujours par ses morts révolution ku si dund ku nekk tàppet nga lâche nga pour muy clair ñun ñii ñëpp tey bu ñu dundee ci révolution bi am na tuuti lâcheté bu ñu am Une révolution se gagne toujours par ses morts. Allez vérifier le dictionnaire de la révolution. Une révolution se gagne toujours par moo tax ñu sorte de martyr Une révolution sa gagne toujours parce ses martyrs. Règle-les. Nous, nous sommes une force octroyante, pas une force occulte. On vous ramène quelque chose de nouveau. Changer nday réew mi changer mental changer jikko bi sénégalais fokk nga ñamel leen day deret léegi désormais fépp lañ koy defee na ñaaw rek bu yàq jotee lu waaye mën yàq na ko xeeb bu soog koo génn Amadou Ba yow lay commencé samedi rëcc nga booy joolaa bi ngeen jàpp il n'en est pour rien coup de bi fi mu jóge chauffeur Mamour Diallo xam na woo naa ko tey suba su chauffeur texoo naa ko dinaa dëgg seen day maa leen ko promettre seen oto yi seen chauffeur am na chauffeur bu ma fekk wetu jumaa ji dafa tiit après mu ngi xool sama vidéo xam naa danga may foog jinne wala di nga xam kaalamaa sa dëgg nee naa la man maay rayal sa ndey sa bopp yow maa lay rayal sama fils de pute que vous di napp réew mi ak ñii da ngeen bëgg a jàmm yéen xale doomu jàmbur yi dee ba pare ngeen di calculer ñu deewagul. gars jàpp leen si combat bi ñu dëgg ndey ñi xam naa combat fin de mois la moo tax premier fois temps ma may maa ngi def samay élaboration samay plan booy pose leen ñu jël suñu temps ñii xeexuñu parce que ñu ngi génnee ay yeneen stratégie de paix ñoom lu ñu def pour échapper xeex bi dañ koy def man nu ma def pour dugg ci xeex bi dinaa ko def ndox Sonko fi mu nekk nii phase bi duma wax sax lu bari comme jabaram yee yuuxu ba affaire bi si jigéen daa gaaw a affaire mais man rien na ma terrasse kuy dee na nga dee kuy dund dund ñun nañ fi jege affaire bi ah basuma basuma mbare wax naa ba sonn ñu xeex nañu xeex ngeen ne nañu pare ne pari ne léegi maa ngi sama xeexanaas man man kese maa ngi sama xeexanaas jàpp leen si combat bi financé ñu combat bi ñu jëlal gaayu waaye ngir yàlla gaayu jàpp leen si combat bi <laughs> combat bi regroupé fond moo ñu dese de ay DJ man ak ñu ñëpp regroupé dabaax ak ñun ñëpp regroupé fond moo ñu dese problème lépp ne tekk ni xam nañ ne waa Pastef du ñu yëngal réew mi regroupement de fond lañ nekk ku ci bëgg jàpp yaa xam ku ci bëggu jàpp yaa xam man sama numéro bi may joxe chaque jour ku ko tapé di nga fa gis PayPal reste bi nag xaw ma ci dara ku may wootam non non non dee ma message direct ndax man duma am jotu wuyu ñëpp basuma basuma mbare xeex mooy solution bi seule la révolution va changer ce pays seule la révolution